bu suñu maam xaadim rasul radiallahu anhu kaana lahu bi karamihi lbaaxil xadim wa nafaana bihi amin suñu maam ne lahu tubtu min aybi iltifaati li gayrihi wa minni lahu ahdun alayya damiru suñu maam radiallahu anhu mu ne tubtu tuub naa lahu ñeel suñu borom subhaanahu wa taala min aybi iltifaati ci ayibu bàyyi xel goo xamee ne bàyyi naa ko xel même bu fekkee ne tarfatal ni la li xayrihi walis ko mooy ci kudul yàlla loolu mooy tekki ne moom mësta bàyyi xel kenn wala lenn lu dul suñ borom subhanahu wa taala ndax ci mbiran yi ci lay xalaat guddi ak bëccëg ci loolu la nekk ndax suñ borom mu ngi wax naan na fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi leyli wan nahaari la ayatin li ulil albaabi suratu ali imran la muy surat numéro 3 mooy aya 190 mu ne man daal duma bàyyi xel lenn li may bàyyi xel daal mooy suuf si asamaan si guddi ak bëccëg ni ñuy wutawante Eh, yooyu nga xamee daal suñ borom subhanahu wa taala bind na ko ci yooyu laay bàyyi xel te loolu mooy bàyyi xel suñ borom subhanahu wa taala waaye duma bàyyi xel benn mbindeef su fekkee ne am na donte que ne tarfatal ayni la mu ne maa ngi ciy jéggalu di ci tuub suñ borom subhanahu wa taala te xam nga ne doomi aadama moom lépp loo xamee ne def na ko ci lu yiw suñ borom subhanahu wa la ko koy daal di fay fa man yaamal misxaala zarratin xayran yarawu moo tax suñ maam xaadim rasul ne tub tu tuub naa lahu ñeel suñu borom subhanahu wa taala min aybil tifaati ci ayibu bàyyi xel ak lu mënti doon waaye li xayrihi wali suñu borom subhanahu wa taala mu ne ndax wa min nii bàyyeekoo na ci man mooy tukkee ci man lahu jëm fa suñ borom mooy mu ñeel ko ahdun ab dikk mooy ab contrat loo xamee dañ koo signé alayya ci man damiru boo xamee ne dañ koo garanti mu ne daal man ak sama borom subhanahu wa taala dafa am benn contrat boo xamee dañ koo signé te contrat boobu dañ koo garanti te contrat boobu mooy ma dox mission bi nga xamee ne moom mooy mission yonent bi sallallahu alayhi wa te xam nga kóllëre euh, mooy ab dikk contrat soo ko xësee signé rek da ko war a matal soo demee ci suratu naxli suñ borom subhanahu wa mu ngi wax naan wa awfu bi ahdillahi ida ahadtum wala tanqudul aymaana baada tawkidiha ba tey ci suratul isra yi suñ borom mu naan wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula suñ borom nee na motali leen kóllëre ndax kóllëre kat dama koy laaj euh, yowmal xiyaam moo tax sëñ Tuubaa man moom euh, kóllëre ji nga xamee ne signé naa ko ak suñu borom subhaanahu wa taala kooku dama koy matal ndax lu ñu garanti la mu ne ndax suñ borom subhaanahu wa taala ba mu waxee ne alastu bi rabbikum xaalu bala shahidna an taqulu yowma alxiyaamati inna kunna an haza ghafilin muy 172 ci suratul araf muy surat numéro set mu ne man boobu rek la commencé nag signé kóllëre googu nag fa yéene ko matal mu ne loolu moo tax euh, ba mat sante ak tubaab bi maa ngi naan ilaahuna ya nasara jalla an mathalin tuubu lahu watruku tathlitha wal awada allahu rabbul wara qad jalla an adadin faltaabudu rabbakum waltatruku al adada sëñ Tuubaa mu ne bi ma tasanteeg nasaraan yi maa ngi leen wax naan jaamu leen yàlla te bañ a wax ne yàlla yàlla la Isa ibnu Maryam yàlla la ndeyam yàlla la mu ne bàyyi leen di wax loolu jaamu leen yàlla te bañ di ko lim ndax suñu borom subhanahu wa moom kenn la yaa ngi dégg qul huwa allahu ahad allahu samat ba jeex sëriñ Tuubaa xaadim rasul radiallahu anhu mu ne tubtu tuub naa lëhu ñeel suñu borom za bayain mu ne muy borom ak jaayante mooy daal tuub naa ci suñu borom jaayante ak moom te nag wa arju maa ngi yaakaar wala wa arju yaakaar na ridaahu ak ngërëmam mu ne kon bi ma jaayante ak suñu borom subhanahu wa taala ba pare ci alastu bi rabbukum ma ne bala jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dinaa ko xitmaal yaakaar ngërëmuk suñ borom ci loolu mu ne kon li ma war nag mooy wa min nii tukkee na fa ca man nag sukurun ak cant la wu ñeel suñ borom subhanahu wa mu ne cant joo xamee ne nag kasiiru lu bari la waaye yaddumu cant la goo xamee ne nag dafay di sax ba yomal xiyaam mu ne bi loolu amee nag fa jiitu daal di may bettee suñ borom subhaanahu wa taala bi bisrin ci mbékk min bu tukkee fa moom mu ne daal eh, bi sant gi saxee sant gi am jóge fa man jëm ci suñ boroom subhaanahu wa taala mu ne suñ borom daal daf ma bettee mu ne nag li nga xam ne moom mooy mbék ak i xéewal mu ne ab rii may sàkku sukuruhu ak cantam nag yi ci moom suñ borom subhanahu wa taala mu ne suñ borom daal bettee na ma xéewal bettee na ma mbég may sàkku nag nit ñi santale ma ki nga xamee ne moom mooy suñ borom subhanahu wa taala mu ne safaa an ngir sell walla mu kuusu mu ne sax ba nag ca tukki ba wala ca géej ga mu ne xuburun lépp mbég la ndax ci beneen xasida mu ngi wax naan la waayanu sirrama fi sayri maaraamu mu ne tubaab bi day bu xamoon secret bi nekk ci tukki wi mu nekkoon kon wallahi maa ngi giñ ci yàlla ne duñ ma yóbbu ndax nekk na ci egg ci suñ borom nekk na ci suñ borom takkal ma ay garaat yoo xamee ne nag am na ñu ci mën a tudd waaye am na yuñ ci mënta tudd loolu lay wax nag ci bayt bi nga xamee ne moom moo ci topp sëriñ Tuubaa ne xal bi nekk na ci xol bi min yi ci ngërëm ak suñu boroom maa loo xamee ne ukkin nuhu dinaa ko nëbb danii nan ngir fiir bii ci moom ndax indi na sudura mu ne naka dënn gor yi walla dënn góor yàlla yi wala dënnu nit ñu baax ñi xubuuru mu ne loolu ay bàmmeel la mu ne gis nga dëndu góor ñi daal boo ci dencee secret mu ne secret boobu bàmmee lay nekk mooy duñ ko wax ba xëy dee kon nag am na ci xéewal yi yuñ mën a tudd am na yuñ mënta tudd euh, wax na ne naa jaaka abduka xadimu abdika murtajiyan naylal munaa min abdika boobu ci xéewal yiñ mën a tudd la mu ne déyante na ak yow suñ borom subhanahu wa abduka sa jaam bi xadimu abdika muy surga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy nag koo xamee ne dafa yaakaar ay xéewal yu tukkee nag fa yow koo xamee ne ay xewal yu jógee suñ borom rek lay xaar bokk na ci ba tey li wax wax faraxanil akramu tafrixan yaduum bi annani na ni xibbun wa xadim mu ne suñ borom subhanahu wa taala bégal na ma mbég goo xamee ne dafay sax ba yowmal xiyaam mu ne garantil ma ne man soppe la xarit la waaye nag kuy liggéeyal yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam kon nag xéewal yi yim tuddul moo ëpp fuuf yim tudd te moom sëñ Tuubaa xéewal yi ko suñ borom defal ñun mbindeef yépp buñ doom bind di wax ci nga xamee ne tudd na ko moom munuñ koo jeexal doy na rek ma waxaat la ne nee na mahat mahabbatil muxtaara sayidana xubbil maxaani wal ahlina wal walada mu ne bëggeel yi nga xamee ne am na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xamee ne moom la yàlla tànn man sëñ Tuubaa mbëggeel gi ma am ci moom mbëggeel boobu daal dinay far daal dinay effacé mbëggeel goo xamee ne war naa ko bëgg ci leneen ak lu mënti nekk muy doom yi di njaboot gi lu mu mënti nekk rek mbëggeel gi ma am ci yonante bi far na loolu ndax dammi wa ahli wa awlaadil fida lahu mu ne sama deret suma njaboot sama taalibe yi sama doom yi ñépp rek jote naa ko mbëggeel gi nga xamee ne moom laa am ci yonante bi sallallahu alayhi wa mu ne jote naa ko nekk abdan xadiman lahu muskaana li sanada kon nag dëgg-dëgg yàlla nañu ko yàlla fayal suñu maama xaadim rasul radiallahu anhu wax ne li mawlaaya xamdi raadiyan anhu shaakiran ala sirri sirri wal xabiiru xabiiru mu ne li mawlaaya ñeel na suñu borom subhaanahu wa taala xamdi samak cant te loolu ci xasida yu bari bind na ko xamdan li munzili dana wa daayi wa munzili shifaayi wa dawaayi xasida yu bari wane na ak cantam moom suñ borom subhanahu rek moom moo ko yeyoo mu ne raadiyan may aji ci moom shaakiran may aji sant ko ala sirri sirri ci nëbb gi nga xamee ne nëbb na ko suma secret wal xabiiru mu ne te suñ borom subhanahu wa taala xabiiru ku dañ kumpa la Euh, mooy yàlla amul lenn loo xamee ne luy nëbbatu la ca moom mu ne sama secret day dencal na ma ko mu ne waaye moom nag lépp mu ngi feeñ ci moom soo demee ci suratu ali imran muy surat numéro 3 ay juróom buur mu ngi wax naan inna allaha la yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fi samaayi yàlla ngi wax naan amul lenn ci asamaan wala ci suuf loo xamee ne dina nëbbu fa suñ borom subhanahu wa taala ba tey mu ngi wax naan mu yaalamu maa yusiruuna wa maa yuclinuuna innahu alimun bi zaati suduri loolu ba tey moom it ay juróom la ci suratu Hud muy surat numéro 11 mooy yàlla xam na secret yi xam na li ñu feeñal li ci dënn yi sax suñ borom subhanahu wa taala daal dina koy xam kon Serigne tubaa dañuy déggee rek ne ku bari ay may la suñ borom subhanahu wa taala may na ko may yu baree bari ba jaam bi lottu na ci tudd yi nga xamee ne moom tudd na ko xam nga wax na ne aataaniya allahu zikran min ladunhu wa qad qabiltuhu minhu za qurbin min allahi mu ne suñ borom subhanahu wa jox na ko ay zikkar yoo xamee ne fa moom la bàyyee ko xam nga dëgg-dëgg loolu rek wax ju rëy la loolu rek dëgg-dëgg war na ñoo xam ne kii dëgg-dëgg mooy xaadim rasul waaye kii may suñ borom subhanahu wa taala dëgg-dëgg ku ci am lu bari la kon daal di nga déggee ci liñ jàng tey ne tuub moom fa suñ borom subhanahu wa rek la waroo tuubal kenn ku dul suñ borom subhanahu wa taala nga jàngee ci ne accord bi ñu suñante ak yàlla mooy dinañ ko jaamu loolu day lu ñu war a topp la booy jaayante jaayanteel ngir yàlla booy sant santal yàlla soo ko defee rek dangay ngay daal di am mbég te it secret nga koy daal di denc nag ci sa biir xol yàlla yàlla def si ñun dégg ak topp def ko si yéen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf mbokk mi bul fàtte bala ngay quitté na nga abonné ci suñu chaîne YouTube jërëjëf